waat te di leen dalal jàmm ci seen chaîne préférée yi ngeen xam ne moom ngeen choisir pour di dund à l'instant tey li nga xamante ni moom mooy Màggalu Touba édition 2021 tey nag dañu ñëw assister li nga xamante ni moom mooy ñëwuk nag yi nga xamante ni moom la Serigne Saliou Ndigal Thioune jënd fas yéene ko yóbbu fële nga xamante ni moom mooy Janatul Mahwa comme chaque année nu mu koy defee tey nag ñu ngi fi coté Ndindi Malick coté Ndindi lañ ko nekk nii fa jiital li nga xamante ni moom mooy nag yi pour yóbbu leen janatul mahwa temps foor yi mu ngi nii donc nag gis ngeen deux vagues la am na vague nag bu njëkk romb am na beneen vague boo xamante ni aussi ñi ay nag yu toll seen digg doole la ñu regg yu suur ñu ñu xamal ne nag nag yi ni lañ jóge donc Baro wax na dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati te moom bu waxee ci kër gi war naa mën a wax ndax ku yàgg ak Cheikh la ginnaaw Cheikh Béthio mu ànd ak ki nga xamante ni moom mooy euh, xalifab Cheikh Béthio di Serigne Saliou Ndigal Thioune donc euh, wax nañu ay information yu bari ci li nga xamante ni moo jëm ci màggal gi ak nag yi nga xamante ni moom la ñu indiwaat ren. ci dawal oto bi ki ci kanam ki ci côté ki wet gi waaw euh, ña ngi may signalé ni chef de village chef de village Janatul Mahwa di Babacar mbay moom it euh, moo nekk ci oto bi donc dañ koy nuyu rek bàyyi fax bàyyi ko mu salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ña ngi lay ziar bu baax yàlla sëñ Bolo ñu xamal nañu yow yaay chef de village yu Jannatul Mahwa. moo toog ni ci kanam di waxtaan. ah moom moo yore liggéey bi. bon ni koy dundee mooy li war rek ab taalibe dañ ñoo jox ndigal te ndigal ci murid du deñ ndigal la ci sëñ Saliou la woon. at mu jot ñu ko fas yéene koo jëf mm-hmm. euh, sëñ Béthio daan ko jëf euh, jamono yi gisatuñ ko mm-hmm. waaye jëf moom bu fekkente ni ci diine la du taxaw mm-hmm. ki nga xam ne nag moom la yàlla teg loxo euh, liggéey bi mu àggale ko mooy taawam sëñ Saliou Thioune waa di def jéem na ko bàyyam daan defee rek màggal gi daal moom mooy bis bi nga xam ne sëriñ Touba woote na ci ni nañ ko ci santale yàlla du sax nag ak tëli waaye bëgg ñëw jariñ rek te moom ku gis ñetti at yi ni mu doxalee nga xam ni ma nga ca yoon wa nga xam ni moom la ko way juróom waxal la lool mooy yoonu sant Serigne Touba ba ba ci ay nombre nag li lépp sëñ Saliou Ndigal ci jënd ko à l'occasion du grand magal de Touba pour commémorer le départ de Cheikh Ahmadou Bamba pour son exil que tout le monde connaît d'ailleurs l'histoire donc ma ngi noonu. gis ngeen macha amin waay ngeen nag yi takku gi ñu takku macha allah gis ngeen soxna si dafa mel ni soxol tooy na ci jëf ji jërëjëf Serigne allah am na solo ñu ngi ñaan mu yàgg koo def amin comme ni ko baayam daan defee mhm. jërëjëf Serigne Sall boo taxawee di gis nag nga xamante ni ñoom yëpp la say Cheikh sëñ Saliou Gueule Tapée jënd fas yéene koo def ci màggalu sëñ Touba comme ni ko baayam daan defee ban sentiment ngay am. waa sant yàlla rek te xam ne li lépp xéewalu sëriñ Touba gi la liñ naan sëriñ Touba tànk kanam la am amul tànk ginnaaw moo ngi nii wane na ko tey. Mm-hmm. waaw dañ ci dañ koy rafetlu rek di ci kontaan am ànd ak mbégte mm-hmm. di ñaanal sëñ Saliou rek fan wi gudd tam yàgg ndigal bi ko sëñ Mountakha jox mm-hmm. ca kaw ca kanam rek dara du ko échappé barki sëriñ Saliou jërëjëf sëriñ Touba sama xol dafa sedd nag du ma cantaakul nag mais kontaan naa ci mhm. ñoo ngi liggéeyal Cheikhul Khadim mhm. yàlla nañ ci tasee ngërëmu Cheikhul Khadim mhm. doxalinam doxalinam ci yoon wi naka nga ko jugé macha allah parce que comme dafa ñëw nekk xale ñu jël ko jox ko ndigal mu jëfe ko te yéen ña yoonu murid ndigal la kon macha allah rafetlu nañ ko lool parce que ci ndigal rek lañ ko gis muy dox màggalu ren gi naka nga jàngatee ak woote ki nga xamante ni sëñ Muntaxa moom xalif euh, général des Mourides woote na ko. waaw dañuy ñaanal sëñ Muntaxa rek fan wu gudd ànd ak wér boroom mbégte mi nguuram gi taw féex la lépp taw féex la sama xol dafa fees. waaw moo tax mënu maa wax. dañuy fàttali tur bi rek ak sant bi. Aminta Fall la. Mhm. jërëjëf. sëñ Bethio jërëjëf. jërëjëf. sëñ Bethio jërëjëf. moom nee na njariñ lu àndut ak benn lor la moom Serigne Saliou xaadimu rasul ndeysaan galo ñu ngi ni jàkkaarloog jumaa ju mag ji jumaay Serigne Bamba Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul xadim ki nga xam ne moo waral lépp ki nga xam ne moo tax toroxunu ki nga xam ne moo tax kenn tuddee ñu ay gens ki pôle ki nga xam ne moo tax tubaab bi nootunu waaw borom jumaa jaa ngi moo tax ndax ñu ndaw ñu baax borom dëkk bu màgg bi mm. borom bis bu màgg bi dëgg la borom téere yu màgg yi dëgg la daaray kaamil la ngi nee galo waaw kër Serigne Abdou Khadir la ngi jumaa jaa ngi ni waaw nii la nag yi war a def jëm buntu kër Serigne Saliou li tax nag garo ñu jiitu waaw dañoo bëgg a xam nag yi bu ñu yegg ci kër Serigne Saliou nun nu muy demee moo tax nu daadee jiitu ngir mën a am loolo garo dama lay bàyyi ak micro bi waaye am na leneen lu ñu seetlu mooy Touba fi mu ne nii commencé naa fees macha allah waaw gis nga jumaa ja seen nga ko ne jël nga xam nga ne ko xool li xam ne taalibe yi dañuy commencé dugg ci dëkk bu mag bi ngir waajal bés bu mag bi di dimanche. di màggalu Touba yamook li nga xamante ni mooy mois de euh, de de de septembre. fin septembre le 26. ci dimanche ji lañ koy féete. waaw donc gis nga li nga xamante ni moom mooy taalibe yi suñu xabru sëriñ bi ma ngi na gis nga mbooloo mu takku ma fa nekk. gis ngeen ñi nga xamante ni ñoom ña ngi fi taxaw buntu kër sëñ Saaliw di xaar nag gi ak kuréel yi nga xamante ni ñoom ñoo war a yëkk. yëkkati li nga xamante ni moom mooy xasida yi pour manifester aussi ñoom tamit seen mécontent seen contentement ndax Serigne Saliou li nga xamante ni moom la daan digle digal ko ki nga xamante ni mooy Cheikh Béthio mooy màggal gi xasida yi ak gàmmu gi te yaakaar naa ni ñett yooyu yëpp ña ngi koy jéem a doxal li nga xamante ni day mel na ñu ngi ci bunt bi dëgg la yegg si nañ xëy gaa ngi ne ñu ngi ci bunt bi ma ne ko xëy gaa ngi ne ngay seen xëy gaa macha allah boo déggee ñu naan na xëy gi xëy Serigne Saliou gi xëy gaa ngi dama koy daal di jege jox ko gars yi. dëgg la dëgg la joxal ma fii lu ne xew na fi Malick daa laay seen ne Malick Malick xay gii lu ne xew na fi. xay gaa ngi lu ne xew na fi. Mhm. dafa yéeme Malick. Mhm. fii soxla bu ne mën nañ ko fee faj. waaw ñoo taxaw ne daa mel dañuy waajal. waaw nañ ko mu jàll. yegg si nañ de Malick kan nga ci xàmmee. kooku daaj Paasan Diouf la. waaw mooy jëwriñ ji. dëgg la buntu kër Serigne Saliou woon nii. waaw. waaw gis ngeen oto police bi ñoom ñooy defar li nga xamante moom mooy organisation bi. mbooloo mi takku na fu ñu dem rek comme ni nga ko waxee Malick mbooloo mi day gën a yokku. sëriñ Kour xas dëgg moo nekk noonu moo jiital nag. waaw waaw sëriñ Xaarim Cuun. sëriñ sëriñ Xaarim Mboos euh, mi gën koo xam ci bëkk néeg moo nekkoon sëriñ Saliou. moo def euh, noir blanc bi noonu sol mbaxana ci ru cara bi kuréel xas dëggaa ngi noonu di romb. nag yaa ngi noonu ñuy seen galo nag yi nag Malick man li ma yéem mooy li ñu gën a avancé nag yi di gën a yokk noonu ci kanam baro bég na baro bég na baro bég na ndeysaan bado bado badoo jiitoo noonu moo sol jaune bi ba mu la daan wax badu gëléem kon ndeysaan badu gëléem a ngoog nag yaa ngi Malick nee naa la xam nga lu ma gën a yéem ci mbir mi waaw lu ñu gën a avancé nag yi di gën a yokk moom ci jaaxal daa mel ni waa nag yi da doon ñëw ba samay tànk taxaw taxaw tey waay ñoo na ba ci rond-point sëñ Cheikh taxaw billaahi ba ci jumaa ji lañ ñëw taxaw taxaw na bu sëñ Saliou ñoo na ba ci jumaa sëñ Cheikh taxawaat bu ñu mbëkk rek dimbali ñu ba tey nangu ñoo dox xoolal galo nag nag noo dox li yéeme na nag yi nangu noo dox galo li yéeme na Malick ñu ngi ne corré su bi ci jumaa ji nag yi ñoo ba foofu taxaw ne duñ dem wër nañ rond-point bi macha allah galo am na ci ñett ba ñeent nag yu wër rond point bi. macha allah Malick nag yi regg nañ de. ñoo ngay wër suñu waxantee dëgg rek. waaw nag yi reg nañ de. waaye nag yu yooyu. nag yi nañ nawet bi de. waaw. macha allah nee na ñu Mauritanie la jógee. nanguwaat nañ ko ci kàddu yi sëñ Saalum fiil nag bi. déggoo li ma la wax. fiil bi xoolal fiil bi galaw. nee nañ da nga sa bët yam. nee nañu nee nañu nag yi Mauritanie lañ jógee. nee na tamit am na ñu jóge Daara Jolof ndeysaan am na ñu jóge Mali yooyu kàddu yooyu loolu mooy loolu mooy duma bàyyi kenn na ñëpp mos ci màggal gi kàddu ne moom mooy sëñ Saliou Thioune mii di bëkk nekk sëñ xaadim sëñ xaadim sëñ xaadim kon loolu mooy galon na ñëpp mos ci màggal bu ko kenn miim ah, bu ko kenn waat xéewali na ci ñëpp mos xoolal nag fanu toll maa ngi ci kaw rond point bi taxaw waaye nag yi romb nañ jumaa ji wëy seen nga noonu gis nga fii nag yi toll fii gis ngeen suñu kanam suñu kanam suñu ginnaaw yëpp ay naga mbooloo mi di gën a génn rek. waaye nag galon nag yi yem nañ ma waaye mbooloo mi di yem na wax wax wax wax wax. màggalu Serigne Touba gi antan na lépp. Malick gëlëm a ngok. galo galo gëlëm yaa ngi. ñoom la Serigne Cheikh Béthio démystifié eh, moom moo tax ñu démystifié lii gëlëm ñoo tax ñu ñemee gëlëm. Mohamed Talla seen naaf Mohamed Talla. ah. départ nga astafurla dindi ba la ñuy gis nag yi lañ doon wax waaye fi mu toll nii gis nañ gëlëm gétt gëlëm gi waaw gàllu waa CNM ngi ne le moom ci booru Serigne Babacar Mbaye jërëjëf yaay nii nga daan defal baayam ba de sëñ Béthio nii nga ko daan defal tey de yow ku la fi gis du jommi ndax nii nga àndewoon ak sëñ Béthio rek sëñ Béthio nga ne sëñ Béthio demul fenn doomam jàng nii nii lay ànd ak moom jërëjëf yaay